wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëfe xaadima rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jëlli ji mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Aziz Guèye moo leen di nuyu di leen ziyaare di ziyaare bu baax Cheikh Mahamadul Muntaqa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te amug wér di ñaanal mboolem ñi nga xam ni ñoo taawu liggéey bi te ànd koog moom di ñaan yàlla na leen sëriñ bii dooleel te dimbali leen yokk leen wér te guddal seeni fan ba naa yi nga xam ne am nañ ko ci liggéey bi yàlla nañ ko defee ni ko sëriñ bi bëggee dañ am ci ngërëmam bi jaay xaadimul Mustafa di ziyaare waa Ahmadou Bamba kenn la jiital ci seenub jawriñ di Seydina yi Souare diko ñaanal nako liggey mu mag bu yaatu bi mu am ci liggeyal borom Touba yalla nako Serigne Touba kàttanal te dimbali ko diko wax ni ko mbollem ko xamni mu ngi koy top di diko tewlo rek ñi gis yittem ak ciofelam ci liggey Serigne bi sa sone mu diko am sa sone muy gën diko yaatal ba mbollem ñi nga xam dañuy dund Serigne bi ci gox bi man di tataan diko jëfëndiko diko jariño yalla na Serigne bi gis lepp te nangu ko bu ko nango yalla nako barkel bu ko barkelee yàlla na ko yaatal te ñëpp man cee jariñu bi jaay xaadimal Mustafa kon tey jii dañoo fas yéene ñëw indi leen jotaay boo xam ni waxtaane xas yi day sëriñ bi lay doon ndax sëriñ Tuubaa ci boppam dafa waxoon ne karaama ci xattu yati sama karaama mooy sama mbindum loxo mbindum loxom sëriñ bi nag mu nekk mbind mu yaatu lool am ñeen ñett ñoo xam ne dañ koy xayma di ko limité sax du ko def ci lim boo xam ni dañ naan ay 700 tonnes la waaye Serigne Touba lim bind jéggi na loolee ndax wax nañ ni kayit ya nga xam ni nasaraan bi amoon nañ ko ci seen dépôt yi te sëriñ bi daa ci jëfandikoo di ci bind ay xasida lim boobu moo tolloon ci 700 tonnes ginnaaw ba sëriñ ba bind na fi ay mbind yoo xam ni kenn mënu ko lim kenn mënta lim bind sëriñ bi te Serigne bi. ki gën a xejj ci mbindam gën koo am lum la wax ne la am na ci mbindum sëriñ bi rek mën na laa limal lu nu toll te amu ko ci kon loolee dafay wane ni mbindum sëriñ bi ku dul sëriñ bi xamul nu mu toll sëñ nag def ay jagle ak i ngëneel ak i njariñ ci mbindam mi te moo di xasiida yi muy mbind mu yéeme lool te barkel lool te am doole lool te man lo xamni ni nii lu dul mbindum sëriñ Tuubaa bi manuko ndax ñi ñi tudde ay cheikhou tarbiya di leen tudde ay cheikhou tarxiya bindum serigne touba man na lo xamni ñom seen jëm ye ya mënuñu ko ñi nga xamni xam nañu cheikhou tarbiya ci yar nit ki ak jangal ko ak ñi nga xamni xam nañu cheikhou tarxiya ci boole nit ki digganteem mak boromam mbindum serigne touba jégge na day wacc ndax dafa wax ni kitaabati faqat suyuqu tarbiya wa kullu xayrin wa suyuqu tarxiya sama mbind foo xana seexu tarbiya ak seexu tarxiya ak mboolem yiw yu baax te yiw yu baax yi ko waxee mooy jëf yi nga xam ni jaam bi jëf na ko te sellal ko mucc ci xeetu yi yàq jëf yëpp li ko mel ni ngistal ak wanewu ak lu mel ni ndamu ak puukaraw ak naw jëf yiw ju ñu la wax ne la yiw ju baax la suñ borom nangu na ko rek mucc na ci yooyee ayib sëriñ Tuubaa wax ni mbindam mi fooxa na seexu tarbiya ak seexu tarxiya ak mboolem jëf yiw yëpp muy mbind mu am doole lool te naqaree xayma te naqaree waxtaana it ndax bu leen fàtte ni sëriñ Tuubaa waxoon nañu ni abda bi taalifi ilaahiyal huda wa kullu man rama daahu bi hada sama talif yi ci la yalla di feñale ak njub da kuy sak njub ci yalla ci man la la yalla di gindi kon motax ku yalla gindi ci serign bi faaw ngay jang khasida khasida don lu lol ndax serign tuba da waxon ni japp len sama khasida yi ndax da melni sama yap yaram la dag doxlin leen sëñ mbake waxon ni khasida am murit rek koy jàng la jiitu wax ja dafa waxoon ni alxuraan buñ ko jàngee ñun murit danañ ko jàng buñ ko jàngul danañ ko jàng waaye xas xasida moom am murit rek ka koy jàng yow murit bi nga xam ni yaa ñuy déglu war ngaa am soññuku bu baax ci mbindum sëriñ bi bu fekkee da wax ni yow murit nga te bëggal dëggal sa murit sa digganteeg sëriñ bi sa xool ci xas daam yi te di ko jàng donte benn lay doon nga wutal ko waxtu bis bu ne di ko sosoo di ko jàng sa digganteek sëriñ bi dana gën a dëgëral sa relation sa digganteek sëriñ bi te dana xejji lool ci yow te dana def ci yow ab tegtal bi wane na yow mi am murid nga ndax xas da dafay lu yéeme lool ndax sëriñ Tuubaa waxoon na inna kitaabati ji jiina man lohul baraya wal fiaali wa zaman Eh, sama mbind mi dafay ñoŋal diine yàlla ji diine yàlla ji bu ko Sëñ Tuubaa waxee mooy lislaam ndax eh, inna diina inda llahi lislaam diine fa yàlla mooy lislaam loolu la alxuraan wax te suñ borom daa wax ni wa man yabtaxi gayra al islaami diinan fa lan yuqbale minhu suñ borom dafa wax ni ku kariyee beneen diine bu dul diine lislaam moom suñu borom du reconnaître boobee diine Sëñ Tuubaa wax ni inna kitaabati saanat diina man lahal baraya wal fi'aalu wa zaman eh, diine suñu borom gi nga xam ni mooy lislaam sama mbind mi moo ko ñoŋal te lahal baraya wal fi'aalu wa mooy borom mbindeef yi mooy suñ borom ak ki moom jëfe muy suñu borom ak ki jamono ji mbindeef yi nekk mooy suñu borom Sëriñ Tuubaa wax ni diineem ja sama mbind mi da koy ñoŋal dem na ba moom Sëriñ muy wax ni yow suñu borom sama mbind mi à partir d'aujourd'hui def ko mu am dara jay gën a kawe julli gu ñu nangu ak koor gu ñu nangu wajaal kitaabati min zal yawmi fawqa yi xubilat wa mi muy lu yéeme yéeme te naqaree waxtaane te am doole lool te doole yi mbind mi ñi koy jàng te di ko rafetal ñoom xam nañ doole ji mbind mi am wala xam nañ leen nit ci doole ji mbind mi am ngir ne luy feeñ ci seeni jëmm lay doon ñu koy dund ci seen xol muy doon ban neex bu kenn mënta misaal neexaayut xasiida ku dul ki koy jàng mënu koo leeral maanaam kiy jàng xasiida la muy yëg ci xolam ci digganteem ak borom Tuuba di ko ci xolam ci digganteem ak boromam ku ki koy jàng mënu koo yëge noonu muy lu yéeme lool Sëñ wax ni ngërëmal yàlla ak xéewal yàlla yi bu leen sikki sàkka benn yoon ni mi ngi ci sama mbind mi mu ne laa shakka fi kawni makaatibi maa ridwaanu baaqin lii mu naa ya jamaa mu lii yéeme lool mbindum sëriñ Tuubaa yi noonu mbind mu am njariñ tey doon luy jariñe lool dem na ba sëriñ Tuubaa wax suñu borom naan ko defal sama mbind mi mu yam ak aj màkka ak julli gu ñu nangu ak koor gu ñu nangu yaani wajaal kitaabati ka mislil xajji wasawmi wasalaati ahli najji muy lu yéeme lool fi ne léeg-léeg nga wax nit ni ko eh, xasida yi dafay am darajey julli gu ñu nangu loolu di ko yéem ngir ne moom dafay jàpp ni mbind moo xam ne da koy askanele koo xam ne dani moom ab jaam la bind ko ñu ni naka la mane am daraja joo xam ni li yàlla digle da ko am lañ leen di wax moo di nañu delluwaat ci ndigalu yàlla yi mooy nañu xam julle lan lay def ci doomu aadama inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar kon julli dafay génne ay ñaawteef ci nit ki moo xam ci ay wax la moo xam ci ay jëf la mu am ci ay xalaat la yooyee lu julli dindi nit ci nit ak lu mel ni ngistal ak yu ni mel nga xam ni gënalul yàlla te yalla dak la ci ab jaamam bo xamne dafa nek ci mom kon bu fekke julli lol lay def ñoom xasida yi mën def ci ñoom lo xamni da leen di taxamu ci yoyé kon buñ ne buñ leen waxé ni leen sëriñ bi ñaan na boroomam mu defal ko mbindam mi mën am daraaje joju non lu xel wara a nangula ben moy nañ xol jaam ñi kan mo leen mom suñ borom mo leen mom jaamu gi ñuy jaamu yàlla kan moo ko moom suñ borom moo ko moom léegi nag suñ borom lim moom moom sañ na koo maye wala suñ koo maye ndax wa fa laa maa yashaa la suñu suñu borom wax maay jëf li ma soob fa'aalun limaa yuriid waaw li ma neex rek laay jëf suñu borom miy jëf li ko neex nag ana kan moo mën a saxal ni yàlla li mu am du ko maye te yàlla wax walillaahi al-asmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa am na ay tur yu rafet lool yoo xam ko ci woo moom nu wuyu la. aduuni astajib lakum boo ma ñane ma may leen sëñ Tuubaa wax ni yaquudu lil akram ma asha'u li annahu yafalu ma yasha'u waaw borom mi nga xamni moy aji tedd ji ta aji tedd gi suñu borom don moy aji tedd ji nga xamni ni la mon teralaati borom ku ko am ko dul yalla dang koy jexal waye yalla rek ka koy meuna am di ko te do ko jexal Sintu tubaa dafa wax yalla momé man ahmadu moo ma ñoddil li ma sow del waxat sax ni yaquduli wala yaquudu minni illa liman li bi idnin minni nii suñ borom wommetal na ma ay xewal yo xamni mom moom yàlla dootu ko wommet di ko jële ci man ci ludul neex taftal nafaani wa bi yan wara aji jariña ji muy borom defal na ma njariñ lo xamni ci man mi ci lay kon dañu war a xam ne sëriñ bi kado la bu suñu borom jox mu indi ay jariñ yo xam ne ci yalla la bayiko suñu borom moko ko jox jaar ko ci buntu bi alayhi salatu wassalam sëriñ Tuubaa am ko ci amin wu ñoŋ ko julliti yalla yi ñu war ko jëfëndiko ndax bu leen faté ni sëriñ da fay ñëw ngir liggéeyal yalla jaar ko ci yenent bi alayhi salatu wassalam luy tax jullit ñi ëllëg ñu mëna am yërmande suñu borom na suñu Tuubaa da waxone wa axarina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma gàddu naa yow sama borom liggéey bi nga xam ne moom la yent bi yoroon la may ci boobee liggéey nga defal ñi ñu am yërmaane ba faw kon yërmaande jooju nga xam ne bi fàgg na ko indi ko fi te jaam ñi rek tax koo jug xam suñu tuwaa dem na bay wax suñu borom naan ko yaa malikal mulki yaa man jalla an irham jami al wara am mbindeef yëpp la suñu ñaanal te loolu ci mbindam mii la ko ñaanee boo demee ci xasida gi ñuy wax rabbi ma sharahul da nga fay fekk ab yaat boobu xasida doon lu yéeme lool te naqaree waxtaanee xasida doon lu yéeme lool te naqaree waxtaanee waaye te am doole lool it am doole lool xam suñ tuwaay bu demee bay wax naan duuna makaati bi ibadatun maa eh, mboolem li ñuy jaamoo yàlla rek eh, sama mbind mii eh, gën naa kawe lu yéeme lool te naqaree dégg ci ko xeluwul waaye te neex dégg lool ci ko xelu ndax xelu ku ko def da ngay ragal yalla ta ngay yalla ko def xamni yalla sañna na ci jaamam yi lo ne ndax fattaqullaha ya ulil albab suñ borom dafa wax ni sax ñi xelu ñoko mëna ragal ragal yalla ñaari xaj la jëfe ndigal bàyyi tere sëriñ lu yalla digle def nako li yalla téré waxuko waxu ko kenn ci kenn ko ci kon koke lu ne mën na ko am ci boromam am na boroomam am mayi boroomam am ay mayi boroomam am gaayi boroomam am gaayi boroomam ba kenn ku ne la la sa borom joxoon nga xam ni moo la ci gën a doy nga yëkkati loolee lépp jébbal ko ko kon léppi sëriñ bi léppi suñu boroom la léppi suñu boroom léppi sëriñ bi la ñoom ñaar aayatan min aayatillaa la kenn mënta dem bàyyi moroomam loolee suñu borom mook ko faggul defal ko ko ginnaaw ba mu ko liggéeyee liggéey bu ko kenn musta liggéeyal liggéeyalal ko ko nag ci anam boo xam ni kenn mësu ko koo defale noonu ci sell gi ci ñoŋ gi ci fegu gi ci rafetal gi ni ci Sëriñ Tuubaa mel diggante mag boromam kenn dabu ko ci loolu dañ ko war a xam te loolu nekkul loo xam ne lu ñuy phénomène yu ñuy wax la wala yu ñuy cer yi ku gëstu ci mbindam di nga ko gis ku xool nekk nam dégg ko ku xool li mu jëfal boromam gis ko ci kon loolee lu neex a wax la te lu neex a dégg la ci nit ko am xel képp ku koy dégg rek di am dara loo ciy jeex jaax sa xel rek war nga xam ni yow ku ñàkk am xel nga te nit dafa war am xel ndax faatabiru yaa ulil albaab bi su borom dañuy xalaatal yow borom xel mi boo xalaatee rek sa xel am lu la jox lam la jox boo ko rafetalee rek mën a digg lii ñuy wax muy nekk lu neex dégg lool xoola xas de yi ci yéemawaay bi xoola jaalibatu maraaxib muy xas de gu yéema lool maanaam xasida goo xam ni léeg-léeg sax nga dégg ñoo xam ni seytaane mooy def ci seen xalaat yi maanaam ñu koy dawloo nit ñi wala ñu koy ragalloo nit ñi di ci wax yoo xam ni mën nañoo wax ne daanaka demewut noonu nañ koy waxee wut noonu maanaam xasida xoola xasida Jaalibuut xoola xasida Jaalibuut man man boog man sama jëmm moom laa gis ci xasida goo xam ni mën naa ciy génne lu mat juróom-ñetti bayit yoo xam ne daanaka ki koy jàng wala ki ko bind la Sëñ Tuubaa di waxal. diko ñaanal ay ñaan yo xam ci suñu borom manam man na wax ni ku dul jang jale batu xeeta ñaan da daanaka eh, ku dul ku dul yow mi koy jang manam jaroo nako señ mi xam nga dañu war xam ni señ tuwa sëñ tuwaa kenn la xam nga sëñ tuwaa kenn la moy ni def suñu borom def ko yentiba ali sallallahu alaihi wasallam war nga xam ni bi lepp lu mu jël ci taawam du ko jagleen kuy jale batu war nga xam ni kon señ bi fonk na kuy jale batu xolal li nit ñi di bëgg ci aduna mu jaral leen di sonn ñàkk leen a topp seen borom muy koom yi ak zahid si nga xam ne jaalibet lu gaaw la ci may ko nit te doo la koy may ba pare te du yàq dara sa diggante ak suñu borom suñ tubaab mi ngi wax ci xasida gi ci tarjumaan ji nan wahab li kulli man yaqra'uhu saadatan wa barakatan wa afiyatan fi daarini yow suñu borom képp koo xam mi ngi xasida gi na nga ko defal texe àdduna ak àllaaxira ta defal ko barke barke buñ ko waxe man nañ ko sara dafa yaatu ay soxna ci lañ bokku ay kër ci lañ bokku ay warway ci lañ bokku yépp ci bir barke lay bokku moy waral ngay dégg sax ñoo naan diw borom barke la kon lool modi barke sëñ touba ñaanal ko ki jang xasida gi wa afiyatan ak jamm jo xamni ni am barke ci aduna sax ta sakko wu ko ci yoonu yalla sax du mëna am jamm joju nga xamni ki jang xasside gi suñu borom da koy may texe aduna ak alakhirah defal ko barke defal ko jàmm kon xanaa loolu kese bu doon àdduna kese lañuy wut sax jar na di jàng jaalibatu jëlee na nag nag xasida gi la muy def ëllëg moo ko tax a jóg te fi ne ni yooyu yëpp ay maanaam dalal xelu nit ki la ci dundam boo war ne ko ëllëg da nga jëm sax maanaam ci la say mbir gënoo doon yaqin kon loolu nit ñi dañ ko war a xam te bàyyi ko bàyyi ci xel xasida daf bokk ci xasida yi nga xam ne képp koo koy jàng maanaam suñu borom da sepp ci bàkkaar xam nga bàkkaar dafa am lu koy waral dafa am yàlla di tere. lo xamne kuko def te tuuboo ko suñu borom doog jox ndigal malaika yi ñu bindal bakkar may amna am ñaari malaika yo xamne ñooy ànd ak jaam mi ñu koy tudd raqib aatit kenn ke di jëf yiw yi jam yi di bind kanen ke di jëf safan yi jam bi di def ñom ñaar ñoñe kenn ki yilif kenn ki kay bind yiw yilif kay bind safan leg leg jam def dara mu war ko bind sax ko deglo ba xam dina ko tuub xoole yermandi joy nga xam suñu borom am ko gi lay waral def bakkaar loolee lay dindi ci yow moo tax suñ tubaab di wax ñaan suñu borom ci xasida gi di ko wax ne ko ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo xasida gi yooyu suñu borom nang leen seppi ci bakkaar yàlla bu lay seppi ci bakkaar euh, du caagi ne da def bakkaar yàlla di ko bind wala da ngay yàlla day fexe ba lay waral bakkaar doo def wa xut dama alayhi min zunubi yaa maali an bi jaahi danubi suñ borom bu lay sepp ci bakkaar day fexe ba lay waral bakkaar yow doo ko def te loolu lu maanaa la lu mën a nekk la loolu lu mën a nekk la mooy njub rek mooy njub waaw suñu tubaab daa wax ni karaama bu la waaye mën a jaay ci àdduna suñu tubaab nee na jëlal karaama jëlal njub yow ndax wax karaama kon njub mooy dëgg-dëgg karaama ah njub mooy dëgg-dëgg karaama suñu na bay wax suñu borom nan ko wa alihi wa sahbihi waxfir liman yaqra'u zannizama fi foofu ak saxaaba yi ñaan suñu borom mu jéggal leen ni ko nak ki nga xamne da fay jang xasida gi diirub jamono bul ko bindale di bakar da lolou lu nek la xasida gi ku kay saxoo di ko di diirub jamono ah, suñu borom dalay musal ca lay waral bakar lay waral ngay wucce bàkkaar nak lolou lay tax suñu borom du bindal bakar te lolou lu neex dégg la suñu borom dem xasida yi suñu tuwaa dem na wax wa hab liman yaqra'uhu aw yaktubu khayral mona yaa man atani kutubu ya suñu borom ki nga xam fay jang xasida gi wala mu bind xasida gi xayiral mu naa ko defal ngën gi xéewal ngën gi xéewal moom amul àdduna loolu nañ ko xam maanaam xayiral mu naa googu Sëñ Tuubaa di ñaan ci jaalibatu amul àdduna loolu aljanna la am benn mooy li ñuy tudde xéewal ci àdduna bu yàlla dajalee lépp jox la ko ëllëg yow ma xeex mu xañ la ajjana amoo ngen gi xéewal ngën gi xéewal ko ko am seen mbiri àdduna yëpp dafay jàppandi ëllëg yow ma xeex nga am aljanna xayiral mu naa kii jàng xas dégg Sëñ ñaan la ko xayiral mu ah kon loolu kese war naa tax ñu jàng xasida gi xasida goo xam ni yow boo koy jàng yent ba alayhi salaatu wasalaam day bég gaa yu yi dañuy bég gaa am xel gaa am xel te gaa am xel bu ko waxee mooy gaa ragal yàlla ñoom dañuy bég yaa rabbana bashir xaaliya lakal habib bi xidmati wa kulla saalihin labib ah ñi xas nit ku koy jàng da ngay amug yar maanaam li nga xam moo jafe nit nga xam nit dana dem ba toll ci at yoo xam li ñuy wax ab yar sax dafay manqué ci moom te la koy sabab mooy na muy jëfee wala na muy waxee wala na muy doxalee xës dëgg nag dalay sepp ci loolu waaw wa bi kitaabatiya rabbi rabbi kulla mutalian li wacci rabbi wa bi kalamiya wa bi ishaara idi muridan yatulubul inaara kon xës da la goo xam ni dañoo war di ko jàng bu baax muy xës dëggu bari njariñ lool xool xës dëgg toofatul mutadarrain muy xës dëggu yéeme lool nga xam xës dëgg tawassul la xasida tawassul la boo xoolee suñ tubaab abiyat bi mu commencé xasida gi ak bam ko daanalee manam secret am da ci ne am am te yi toxfatul mutadarahin bok jele mi ngi commencé alif mi ngi min. mim alif ak mim boo bolé am lay don am am nga xamni manam maanaam lu gaaw lol la ci lepp lu jam di wut te bëgg koo am rek manam ci gaaw lol la xolal jimmi tofatul mutadarahin nga xam suñ tubaab mi ngi ko tëggee turu yalla bu ñu wax nga xam ne 58 bayit la 58 boo ko jëlee 3 fois 174 la lay jox 174 mooy doon am wàllu dunia alalu adduna ñoom xasida ñetti tuxfatu ku koy saxal di jàng maanaam mboolem lay xeeb ci àdduna suñu borom dala ko yombalal muy lu yéeme lool te njariñ li muy def ci baatin moo ëpp doole foofu li def ci zahir ndax zahir yi mooy lu nit ñi mën a gis rek waaye baatin bi ki koy dund di ko yëg moom moo koy mën xam muy xasida bu yéeme lool fi ne nii soxna boo xam ni eh, dafa tollu diggante maanaam ñu war koo opéré tey jii maanaam ngir bëgg am doom rek fi ne nii docteur yi bu ñu xamoon secret boobu du jar ñu koy opéré maanaam kaas la jël def ci ndox jàng xas dëgg ñetti yoon wut meewum bay def ko ci jox ko soxna si mu naan ci ak 24 heures am doom rek dana ko am allah muy ay njariñ yoo xam suñu toit duñ ko indi ñu war koo jariñoo xoolal xas nga xam ne yi nit ñi di ragal ci àdduna yëpp bëgg cee mucc xasida gi da ci musal nit ñi moo xam seytaane la moo xam bët la moo xam làmmeñ la moo xam pexe doomu aadama moo xam pexe jinne la moo xam bëtu jinne la wala waxu jinne lu ci mën a doon ci yooyu xasida gi da ciy musalaati wa kun mu'izan lana min sharri zi hasadin ma sharri famim wa sharri l-ayni yàlla wa sharri sihrin wa sharri l insihimu ma jinnihim wa zawaati sum yàlla nga xamni jimmi beyd bobu Boko Jele ñaari abyaat yooyu sekrep falaxe ak nasi mo ci nek falaxe ak nasi doole ji am xolal ñe bañ jëbaree yent bi alayhi salaatu ci fukki pousa ak ben kérok bi yàlla bëggee njëbar ga dañ falaxe ak nasi la wacc falaxe boko ko juroomi ayala aaya la naas yi boo ko jëlee juróom benn la boo leen boolee fukk ak ben lay doon suñu borom jël sekrep bobu bu yalla wacc rek ben pousa toj ba fukki aaya ak benn wàcc fukki puse ak benn dañ jëbar ga dañ sekkere boobu nekk ci falaxi naas moom la suñu tuwaa def ci sindiir yi boo ko neexul a'uuzu bi rabbil falaq min charri benn ngay am maa xalaqa wa min ñaar ngay am gaasiqin izaa waqa wa min charri ñett ngay am nafaasaati fil uqad wa min charri ñeent ngay am xaasidin izaa hasada xul a'uuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min charri benn nga fay am boole ko ñeent yi mu nekk juróom wakun muizan lana min charri zi hasadin ma charri fa min wa charri ayni yàlla wa charri sixrin wa charri xalqi insi maajin wasawaat sum yàlla foofu it juróom ngay am am secret falax naas Sëñ Tuubaa def na ko ci sindiri mooy xas da gu yéema lool xam Sëñ Fallu xas da kun la ko tuddoon da kun xas da kun la ko Sëñ Fallu tuddoon sana Aïchat naa soxla benn bibliothèque bu ñuy def ay téere mu ñëw doon ko laaxan Sëñ Fallu Mbàkke Sëñ Fallu Mbàkke ni ko noo mun ko nga baaxe ma ko mooy mun ko mooy si ndiiti rek mooy si ndiiti waaw boo ko jàngee juróom-ñaar rek loo ci fas suñu borom defal la ko son Aïchat Gaawaan nee na ba mu demee ba jàng ko ca ngoon ga lañ ko ca yenal ñaar indil ko muy muy lu yéeme lool muy loo xam ni maanaam kii koy dégg dafa yomb ci moom waaye baatin boo ko taw moo am doole maanaam Sëriñ Tuubaa ci boppam maanaam na gaa yi xam ni maanaam du kenn maanaam te mu ak kenn te bu ko kenn it yemale kenn ndax moom yemut ak kenn suñ borom mi nga xamni manam moñu ko baxé ñun nga bëgg ñuy jaariñe ci mom sax suñu borom yemene wu ak lenn bo xalé yalla suñu borom subhanahu wa taala ñaata ci ay malaika la xam doo mëna lim yalla ñaata la am ci ay yenentu faxa kadin min al ulufi ya rajul loolu la suñ tubaa wax téméru jinné ak ñaar fukki jinné ak ñent yenent xoole suñu borom 313 la ci tànn tànn na def lañ ñuy ay morsal ah xolal xolal awliyaaw ñaata awliyaaw la yalla am xolamaaw wi ñaata xolamaaw la yalla am waaye Sëñ Tuubaa benn la ci yàlla am maanaam Sëñ Tuubaa benn la ci yàllam am doo dégg ñaari Sëñ Tuubaa mukk weesu jamono ak lii ñëw ci kanam jamono doo ko dégg mukk ñaari Sëñ Tuubaa maanaam ñi yeewu ñëpp te am xel saa bu ñu tuddee sëriñ bu mag mi rek seen xel yëpp ci Sëñ Tuubaa lay dem te bu fekkee ci zahir la magul ci sëriñ yi am na ñu ko fi jiitu ci zahir ëpp ko ay at waaye bu ñu nee bu mag bi rek seen xel yëpp ci Sëriñ Tuubaa lay dem loolu day wane moom la. kon Serigne Touba kenn la te kennal lako yit lu war la minam mi nango fonko ta japp ko da won na japp len sama mbind mi da melni sama yap yaram la dag jox len Serigne Touba waxon na ni wew mu mu san ko ci aw sën ku dox ba far ko du moromu waliw wew wew Serigne Touba bu mu dag san ko ci sën ku dox ba far ko du moromu waliw kon bindam mi mu wax ne nak yap yaram la yap ak lan mo gëna a ci yaram ah yap yàpp ak we lan mo gën tax ci yaram kon nañ japp xasida ta te ko te selal ko te rafetal ko ta dabu ci ngeureumal serigne bi te xam man nañ ko ci am sëñ Muntaxa dafa wax ni mo gëna a gaaw ci may ngeureumal serigne Tuubaa waaw serigne Sidi mokhtar da wax ni kep ko da bëgg gis serigne touba nay jang xasida ko xam nak da bëgg gis gi gaaw nay jang eh, na bolek di nan kafe nga xam ni kafe gi ñuy xeeb nii nga xam ne am na ñenn ñoo xam sax dañuy wax naa murid yi daa am nuñ ciy def te xamuñ ne barke ba ci yàlla def te suñ tubaa sàkk ko ngir bëgg koo jëriñe nit ñi xëy na ngay gis koo xam ne ne murid la mais moom nee na du naan kafe te boo ko joxee ataaya mu jël te am murid kat wax dëgg yàlla kafe da koy faj xam ne ne am na fi kilifa gu mag goo xam ne feebaroon na ñu ne jabat moo ko dalal bu ñu ñëwee ci suñu saali bu sa suñu la jël suukar ba ma joxee kaas bi muy wax naan ay damaa jafe tak xam naa Mbacke suukar see tax suñu si àll Mbacke naan loo ko mu naan ba mu demee noonu def analyse gars xool ko gis ñu benn taas ci yaramam te kafe moo ko faj ah fi ne nii la ñuy wax cancer nii nga xam ne day sonal nit ñi nit ñi di ñàkk lu bari seen àll fi ne kafe kafe ci boppam da koy saafara da koy saafara te fi ne nii am na yiw yu nekk ci kafe yoo xam ne lu dul kafe mënu ko maye. am na yiw yi nekk ci kafe yoo xam ne lu dul café mën ko may waaw xam naa dañuy wàcc kàddu gi foofu <laughs> di jégalu mboolem rëcc rëcc yi nga xam ne am na ci rek lépp loo xam ni eh, mat na ci rek matuk sëriñ bi la. gum ñu baaxee ci yéene ji ñu am ci baaxe ko jaamam yi eh, ci xasidaam yi ak mboolem njariñ yi nga xam suñu boroom defal na ko lépp loo xam rëcc la ci eh, la jubluwaay matadi doomu aadama la. noo ngi ñaan suñu borom mu jéggal ñu ko di jaa jaajëfal waa daara ji muy waa Ahmadou Bamba kenn la sëriñ Siwaare mi nga xam ne mooy njiitu liggéey bi ñu ngi koy ñaan suñu borom gën koo dëgëral te gën koo wéral te gën a guddal fanam. di ko wax ni ko ñun murid yi nga xam ne ñoo nekk fii Thiès de di dundandoo ak yow maanaam li ngay xemmam ci sëriñ bi di ko jëf ñun ñu ngi ciy teg bët xam nga bare naa ñuy woote liggéeyal sëriñ bi lañuy ñuy jëfal sëriñ bi doo ko gis waaye moom sëriñ Siwaare mii ni limuy jëfël sëriñ bi fi ci Thiès ñun ñu fi bokal nek ñu koy teg bët waaw lu mu mos laaj ngir sëriñ bi rek manam wan nañu firnde ci lim ko defal ci sëriñ bi to loolu man ñi mat na ci don donte ben at la musna ko and ak mom ci liggéey mo ko daan yëram ba ko yow sëriñ bi man de dama lay yëram sax ndax man ñin naa ko am kenn mel Sëriñ Tuubaa bu ñuy def fi Thiès nga xamni at mu ne dañ koy def yaakaar na bu ma jumul wii weesu moo 13e édition bi japp 14e na moom lañ dëgmal sëñ bi bu si wéteroo juróom benn weer mën naa wax ni benn mbubb lay sol ba bis bi jàll nga am maanaam si méegu sax moom du ko tal maanaam jëmm joo xam ne liggéey Sëñ Tuubaa da koo jaral loolu loolu dafa bëriwut maanaam dafa bëriwut moo tax ñu ngi koy ñaanal baax suñu borom gën ko wéral te gën koo dëgëral te gën a guddal fanam baax ba naal ak yéene yi mu am ci jotali ko liggéey sëriñ bi yàlla na ko ci Sëñ fekk